bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi mbokki Sénégal su ngeen bëggee xam le numéro un de carreaux da ngeen agsiwul fii si Touba jàppale ni mbokk yi bi tay fort accès ba léegi yéen société bu nu ràññee loolu si wàllub carreau si àdduna wërngal këpp si liggéey bu baax si ay carreau yu mucc ayib waaye nag mbokk yi fii si Touba seen représentant bii di Touba xéwal carreau nekk si Touba 28 kër Serigne Mbaye Sarr jàkkaarloo kër Serigne Abdou Wadour lépp lu ngeen itteewoti si wàllub carreau ngir seen ay travaux si ay carreau dernière génération mën a dékku mbooleem température waaye nag liggéey bu am étanchéité prix bu xéewale boo dul am faneen fu dul fii mani mbokk am nanu grès poli 40 sur 40 akit grès poli 60 sur 60 amit porcelaine 40 sur 40 60 sur 60 amit émail dimension 30 sur 30 40 sur 40 waaye tamit am carreau faïence 20 sur 30 25 sur 40 ay antidérapant si ñaari façon am nanu antidérapant décor antidérapant crin 30 sur 30 amit grès sédam bari ay façon loolu première qualité 98 04 am na fi également ay ñetti dimension 30 sur 30 am nañu couleur bu beige amit couleur bu gris ah mbokk lii nag mooy la qualité totale saa su ngeen itteewatee produit yu baax bëgg ay matériels yu mucc ayib aju si wàllub carreau bu ngeen accès fii si Touba xéewal carreau boole magasin bu jënd di jaayaat dama ni jaxatul dem usine ba fii la gën a yombee fii la gën a yembee fii la gën a xéewale ak si xam bu ngeen bëggee lépp lu ajo si wàllub sanitaire ci matériel de qualité am na nañu lavabo ay chaise anglaise wala ay robinet ak lépp lu si mën a doon mbokk ay commande ñu defal leen livraison lu mu sori sori si biir Sénégal wala si biir Touba sunu ay oto yemb na gaaw leen gaaw woote 77 501 24 34 76 585 53 46 bu ngeen bëggee nag seen i mbëbët antu ñëw leen seet si représentant Tayfort di Touba xéwal caro si Touba 28 lépp yemb. bi baax téléspectateur wu Rafah TV amati nañ mbégte ak bànneex di jàkkaaroo ak yéen saa su nekk euh, tey nag seen émission ndogu VIP ñu fa yéene ko doore ci ki ñuy wax madame Mbacké directrice SEDAF madame Mbacké ba lu ñuy xus ci biir waxtaan bi dañ lay bàyyi nga daal di nuyoo ak téléspectateur yu Rafah TV kon madame bismillah maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen jox seen wàccuwaay di nuyu seen téléspectatrices yi yi nga xam ne ñu jàkkaarloo ñun di ñu seetaan. ah madame gërëm nañ la bu baax bala ñuy xuus ci biir waxtaan bi nag macha allah bi ñu ñëwee dalal nañu gis ngeen tamit ndog yi xéwale na teeru nañu tamit ni ñuy teeroo buur ay ca madame dañuy ñëw rek ci préparation ndog yi ndax gis nañ ko mucc na ayib loolu macha allah. waa xam nga ñun ay jullit lañu avant ñu nekk ay murit te murit ku ko xam-xam ni bernde moom la xam te gan ko ko am danga koy teeru teral ko. loolu moo tax euh, ñu teeru leen fas yéene leen teral xeeb ko lool nag di sant nag bu baax xam naa sant sax mooy mujj mais nag mënuma ci bañ a sant sama mbokk yi toog xam ne ñoo ci jàpp ba yëf mucc ayib ndax man xam ngeen ni jaamu jàmbur la ñoom depuis ci suba ñu ngi fi dima jàppale muy soxna Xadi Diop euh, soxna Jogob Ndiaye ak soxna Ndumbe kon nag euh, maa ngi leen di sant ñoom tam bu baax a baax te ñoom ñëpp ñu bàyyi seen kër ñëw rek pour teelu waa Rafat TV pour ànd ak yéen ndogu. Mhm. naa ni fi gis moom maam boo xam ne dina fi ndogu ndogu loo xam ne. <laughs> yéen ko moom. live bu image génnee dina am lu ko métti Aïcha madame dañuy daal di xuus ci biir waxtaan bi naka ngay passé journée bi ak liggéey bi weeru koor bi tàngaay bi ak euh, liggéeyu kër gi. xam nga ñun ñoo opté pour. liggéey ci administration muy loo xam ne ñii duñ ma démentir ndax sànq bi nekkee réunion ak jigéen ñi rek sama kilifa mi ma doon woo yombul yomb na li ko yombal mooy lu mel nii li ma la wax nii ñii nit ñu baax ñi ma am ñi ma jàppale ci wet gu ne ak it sama rakk ji nekk ci kër gi muy ki topp ci man xam ne man maa ko wàcce mu jàppale moom bu wér a wér a wér maa ngi ay xale yàqu dara sama ci sama liggéey administration ndax dinaa liggéey si administration bi dinaa liggéey ci jigéen ñi dinaa liggéey ci leen teewul nag sama yëfi kër dama koy def euh, su ma liggéeyul maa ngi ci kër ga xale yi su liggéey am na ñu ma koy defal su ma wàccee ma mottali ko loolu moo tax euh, dara du jafe. macha allah madame macha allah kon euh, feccu liir bu neexee rek nday jaay jàpp ca wagg ya ku nekk am nga ñi lay jàppale. ñu ngi leen di gërëm bu baax ñun tamit ci teeru gi nga xam ne teeru nañu ko ayca madame yow yaay directrice SEDAF bu Mbàkke bëggoon nañoo xam SEDAF bu Mbàkke lan mooy taxawaayam ñi nga xam ne ñu ngi koy dégg te xamuñu ko. waaw bala maa ñëw ci SEDAF nag di ngeen may ma sant borom kër gi sama borom kër ndax nag waaw ndax nag doomu ndaayaan awa bàll ji sëñ Abdou Samad Mbàkke im sëñ Moodu aw bàll imam daar Moussi dama koy ñaanal bu baax wér ak wérle ak njaboot gu barkeel ndax lu ma mel rek moom la lu ma mën rek moom la ndax am na noo xam ni su ko doxalee woon dina metti lool ci man kon nag maa ngi koy sant di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér ñaanal sëñ Abbas eh, sëñ bas Anta Niang xalifa Daaru Musti di ñaanal tamit sëñ Muntaxa moom it nga xam ne mooy sunu kilifa ñun ñëpp eh, yàlla may ko wér ak wérle ba mu mottali naalam Sedaaf nag mi ngi bëgg a siiw nag eh, ndax Sedaaf taxawaayam du la dara lu dul jigéen ñi nga gis ak seen yeneen morom yi ñu fexe ba demal seen bopp ndax ñu mënal seen bopp ndax su suñu mënalee seen bopp rek dafay feeñ ci kër gi feeñ ci famille bi feeñ ci askan bi moom la tubaab di wax autonomisation de la femme ndax jigéen dem ñu encadré ko assister ko ba mu dem ba mënal boppam ak jigéen ji fu mu mën a bokk nag ak fu mu mën a féete ak wet gu mu mën a bokk rek loolu mooy SEDAF ndax umpale woon ni SEDAF mi ngi bokk ci ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants muy centre boo xam ne dañ ci tàggat jigéen ñi ci wàllu formation ci wàllu encadrement mais surtout ci volet social jigéen ñi nekk tolof tolof dañ leen taxaw kon nag SEDAF dafay participer ci développement wu dëkk dafay participer ci développement góor euh, réew ndax su jigéen autonomie rek Euh, pays bi di développé. ginnaaw loolu madame ñu bëggoon a xam depuis kañ nga jiite SEDAF ak ban taxawaay nga fa am. SEDAF maa ngi ko jiitee depuis euh, le 14 mai 2016 euh, mais SEDAF bi ñu ngi ko ubbi depuis le mois de janvier 2011 man ma ñett nekk ñetteelu coordonnatrice bi fi nekk. ah taxawaay bi ma ci am moom du man maa koy wax defe naa jigéenu département bi ñoo koy waxal seen bopp. ndax defe naa SEDAF moom bu soxna maam Jaara Buso moom lañ ko tuddee il faut ñu xam ne SEDAF dañ ko tuddee suñu royukaay SEDAF soxna maam Jaara Buso lañ ko tuddee pour ñu am ay jigéen yu model moo tax ñu jël ki xam ne mooy suñu royukaay ñun ñu tuddee ko SEDAF bi ah, SEDAF bi moom damay bàyyi rek jigéen ñu jugé seen bopp defe naa yow mii sax xam naa bi nga déggee SEDAF mooy bi ma fi nekkee bien que nag je suis la troisième coordonnatrice kon nag euh, SEDAF maanaam daal am na foo ko fekkoon am na foo. ci lu wér ci lu loolu moom SEDAF mi ngi financé mi ngi formé mi ngi encadré mi ngi def social ci nit yëgul ak ak lu nit yëg ndax lu social yëpp la wax nit ki mën na am bànneex euh, ñu yokk ay teraanga loolu mën nañ ko fésal mi nit ki mën na feebar euh, yooyu kenn du ko fesal wala mun nekk ci ay jafe-jafe ñu koy faj ci biir sutura yooyu yëpp SEDAF koy def kon SEDAF moom. defe naa dëgg yàlla euh, ñu ngi liggéey mais nag ñu ngi ñaan mu gën a yokk. Hmm. kon madame bu ñu jógee ci SEDAF rek dañuy dugg ci wàllum politique ndax ku la xam-xam ne yaa ngi bokk ci APR euh, ñu bëggoon a xam sa diggante ak président Macky Sall ak fan nga ko féetee ci dëkk bi sell bi di Touba. président Macky Sall fi ko ñu ko bëgg a jàppale ñëpp féete rek laa ko jàpp féete ndax nit ki moom bu fekkee dafay solidaire nga am ak moom di politique nga am vision. mu teg programme am programme am bi euh, convaincre la ndax man avant may nekk ci président dafa am ci beneen parti bu ma nekkoon te it li jaaxal ñu bëri man kenn yóbbu ma APR man maa gis président ni muy liggéeyee ma gis vision bi mu am surtout ci jigéen ñi ma dem fekk ju ko partem kon nag euh, sama diggante moom mooy rek dama njëkk am man discipline de parti man madame Mbacké dama am discipline de parti dama tënku ci sama suñu charte parti moo tax man yu bëri loo ma ci gis loo ma ci dégg mais nag président Macky Sall euh, euh, fi ma féetee ak fi ma ko féetee mais mooy fi ko militante ak militant bu fidèle ak bu républicain féete fa laa foofu laay taxawee république euh, militant par rapport au président Macky Sall dafa am ligne de conduite bu muy tege da ngay gëm li nga gëm muy politique gu président Macky Sall di ko liggéeyal surtout lu yokk parti bi di ko liggéeyal ci ci ci ay nitam ba ñu gis seen bopp ci parti bi pour ñu parti lañuy ñuy wax waxaguñu état euh, euh, ba nit ñi naw la pour mën a ñëw adhérer ci liggéeyam moo tax man madame Mbacke bi ba dama koy éviter ci politique politique bu sell laa bëgg di politique politique bu jaar yoon surtout bu dëppoo ak dëkk bi ñu nekk dëpp sell bi il faut ñu tenir compte ci loolu parce que politique du dara lu c'est l'art de gérer mooy li ngeen ñu fekk ci suba ñuy def indi ay jigéen ñu nekk ci ñuy sottante xalaat def suñu solidarité di natt di liggéey ku ci am sa njaay njaay ko jaay ko di waxante di conseiller te suñu biir loolu dëkk bu sell bi laaj man noonu lay politiquer noonu la président suñu leader mel ndax président Macky Sall ku ko xam-xam ko ci yar ak teggin. tamit lu ëpp ci askanu Touba da ngay dégg ñuy ŋàññi Macky ñu ne liggéey fi wala day liggéey yéen loolu seen manque de communication ak askanu Touba wi la wala nan la demee noonu. xam nga loolu lu fi naqaree jële la ndax président Macky Sall dafa ñëw indi politique autrement xam nga politique ak yàq àndul maam ñi ko fi jiitoon nañu liggéey mais dafa am <laughs> ñeneen luñ tàmmoon ci biir Touba. mooy xaalis bi doon circulé koo wax mu la dëkk bi dafa makki dëkk bi makkiwul euh, président Macky Sall dafa am option bu mu jël muy liggéey mu dem ci biir askan bi euh, ñëpp nag mu ñu amandoo mais soo gisee bourse familiale yi gis denrée yi mu neex ak mu naqar yi fi mu ko fekkoon ba léegi fa la nekk nga gis ni muy yokkoo tali yi yokku opito yi yokku école yi ba nit ñi mën ci jëlee xam-xam ak yeneen ak yeneen politique boobu moom moom la opté pour Sénégal muy plan Sénégal émergent bi mu teg soo gisee maa ngi ko wax rek dem barki dem sama benn émission rajo politique bu président Macky Sall daf ko miser ci jeunes yi ci jigéen ñi mais jeunes yi da leen miser da ko miser encore ci bay bi soo gisee barki dem maa ngi dégg waa jogo yi naan seen soble yi seen pomme terre bi dafa bari ba xamatu ñu koy def loolu politique am la moo tax non seulement dafa am qualité mais dafa am quantité kon nag te bu njëkk politique bi bu njëkk euh, pratiquement waa euh, àll bi daawuñu ci gis seen bopp mais xaw ma Sall ñu koy ŋàññi waa àll bi. ci ëpp tamit da ngay dégg askanu Touba ñu naan dafa déggalul kilifay dëkk bi ak tamit jàpp gi nga xam ne moo ngi koy jàpp nit ñi di tëj lu ci ëpp nit ñi loolu lañuy ñuy kaas. mais loolu ñoo koy wax mais président Macky Sall li ko sunu sang bu tedd bi wax sëñ Mountakha Bachir. bi muy wutaat réew mi ak bi mu paree loolu ñëpp mu ci réseaux sociaux yi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi koy dégg sant nu ko gërëm na ko ñaanal ko ba ko dama lay bàyyi sëñ Touba ba ne ko dinaa la ñaanal ci sëñ bi kooku bu déggul ndigal <laughs> loolu loolu loolu ay wax la rek loolu communication soo nee nag suñu par dafa ñàkk communication moom la je je suis parfaitement euh, d'accord communication des na si wàllu ñun tëj bi Macky Sall tëjul kenn il faut ñu bàyyi Macky Sall le président Macky Sall euh, pardon euh, dafa am pouvoir am justice am pouvoir à part mais président nu muy fekkee nit mu toog mu koy tëj nit ki da am problème ak justice il faut tamit ñu ormal suñu magistrat yi nga xam ne ñoo jàng ba àgg si fi ñu àgg jàng ni ñi ni ni ni ni ñuy attee doomu loolu la ñu jàng ni médecin bi jàngee métier bay mën a faj nit jàngalekat bi jàng métier ba am fiche d'orientation bi mu tegal xale yi euh, euh, mécanicien bi def la même chose noonu la magistrat yi mel il faut tam ñu bàyyi parce que boo nee bu ñu président mooy tëj mooy tëj ji c'est manque de respect à nos magistrats magistrats yi ñoo yor seen justice bopp. te defe naa duñu fekk nit ku defu dara këram rek ñu jël ko ni ko kaay dem tëj la. ay ca xam naa dañ koy tënk rek ndax li des ci waxtu bi moo bëriwut da Mbacké ban mébét la am ci langue politique bi ndax ma ngi xalaat ëllëg mu taxawal parti boppam wala dafa fas nekk ci parti APR. parti moom xalaatuma ko te duma ko def amul sens ñaata ñaata parti politique moo am au niveau. du Sénégal benn pays boo xam ne ay 14 millions 16 millions d'habitants la ñuy wax nga am plus de 300 quelques partis politiques <laughs> mais ay moom la ñu ay parti cabine téléphonique mënoo ni rek ni man bëgg naa benn post rek naa ni former sama benn parti pour accès poste boobu il faut tam ñu logique sunu bopp te objectif yi la ñuy def am na parti yoo xam ne fi mu nekk boo ci génnee euh, chef de parti bi jabaram ak ay doomam doo gisaat keneen loolu loolu loolu am na am na ay député yu nekk euh, par exemple wax naa ko barki démb euh, assemblée euh, le le cas de Sonko bu ñu ko jëlee Sonko Sonko am na popularité mais population bi faluñu ko pour mu nekk député plus fort la nekk député bu fekkoon ni nombre bi ñu ci nombre de voix la du nekk député kon nag yooyu yëpp ay caaxaan lañu nit ki da ngay am objectif parce que man libéral la président Macky Sall laa àndal tant que mi ci langue politique bi du ma dem feneen moom lay àndal di politique li ma laaj nekkul politique da nga bëgg dara politique gu ñu pour politique ni kese parce que boo nee euh, politique c'est l'art de gérer la cité euh, da nga bëgg ay outils ak ay moyens yoo jàppale ay nit surtout ñun jigéen ñi boo amee benn poste mu leen poste bi soo soo xëccoo ba àgg fa di nga gën a mën a jàppale jigéen ñi man toujours dama dina yootu poste boobu mais lépp ci kaw yar ak teggin ay Aïcha ginnaaw loolu ma dem kon waxtu bi daal dinay jeex dañ lay dañ koy tënk rek euh, sa diggante way politique yi nga xamante ni si ñoo féete ci dëkk bu sell bii di Touba naka la demee. waaw man daf ma ay nekk nit koo xam ne <laughs> wax nga ko léegi ci sa début euh, question nan laay allier sama liggéey ak kër gi ak politique bi dama nekk ci administration ñi ma amal problème. parce que nit dëgg du romb nopp ñoom ñoo am problème man man amoo problème parce que sama liggéey administration mu ñu fexe ba ma boole ko ak politique bi xëy na loolu mooy seen problème ñoom mais man j'ai pas de problème ama problème ak ñoom euh, ñëpp laa seqal jàmma à part ñoom xëy na su ma amee benn liggéey war koo def euh, am na ñu xamul dañuy yaakaar ne dama leen a léser dama leen a bàyyi en rate c'est pas ça parce que ñu dañu am ay termes de référence yu ñuy liggéey Euh, ci yooyu la jël pour ni suñu programme ni dañ ko teg avec suñu autorité am na ñoo xam ne nag moom vraiment xëy na dañoo bañ madame Mbacke rek euh, lu mu def nañ ci xëpp suuf mais man <laughs> loolu yëngalu ma. ñàkkul ne am na ci ñoo xamante ne ngaa cité ay tur ku ñoo xam ne say référence lañ ku ci mel ni Cheikh Abdou Bali mën ci dëkk bi euh, madame Mbacke jombul ne am na ci ñoo xam ne ay xaritam lañ. am na ay xarit mais ñi nga toog fii dañuy politique sama xarit lañu. ci langue politique bi ñi nga xamante ne si ñoo ne ci dëkk bu sell bi te seen tur gën cee fees. gis nga mën na ma wax waxi politique te duma tudd le président Moustapha Cissé Lô kooku sama référence sur le plan politique ndax politique xam nga lan moo koy def fit ak jom ak bëgg li ngay def loolu mënoo bañ a bi politique te doo am amoo fit euh, en tout cas le président Moustapha Cissé Lô sur le plan politique sama référence la parce que dafa am vision lu mu lu lu mu visé ci politique tant que jotu ko du ci am jàmm nit ki sooy politique loolu la parce que politique mu xëccoo da cee am waaw euh, en tout cas Moustapha Cissé Lô sama sama référence la c'est Bali euh, mi ngi dugg ci politique bi mais soo ko gisee xam nga c'est pas un politicien da ci dugg rek pour jàppale le président Macky Sall moom it euh, def ko ak ci yar ak teggin ah, mais politiciens yi bari nañu y a l'honorable député. Abdoulaye Seck Sadaga yàgg na ci parti bi bi mu nee waaw ba léegi neewul déet eh, l'honorable député Makhtar Diop moom it bi mu nee waaw ba léegi neewul déet euh, et cetera et cetera. Aïcha sunu dernière question mooy ndax politique moom dafa war a nekk loo xamante ni si ki ciy nekk day ñaaw làmmiñ di saaga ak di dàggasante wala ban taxawaay lañ war a am. non non non loolu du loolu. anarchie la. Mhm, dañ koy faral di gis lu bëree bëri fi am sax ba ci biir assemblée ay saagante lu dafay. xam nga loolu ci éducation de base dafa am solo ci ni dafa am noo xam ne ak lu mu bëri bëri bëri dafa am ñoo xam ne duñ ci gis. politique nag bu xëccoo jotee mën nga xëccoo mën nga dóor ci kaw table ji mais toujours war nga sóor ëllëg ni parce que nit ki bu dara sa dignité bopp danga am ay doom bu dee góor am nga soxna bu dee jigéen am nga borom kër nit ki bu da nga ko war a xoolaat. politique du xaste de politique ay idée la ay idée la euh, ay ay ay ay ay ay ay fexe ba élargir sa base politique mu ngi ñëw adhéré fexe it ba nit ñi da ngay politique ñu gis seen bopp nañu gis seen bopp ci li ngay def par exemple soo amee téeméer euh, mais bokk kook ñoom bu ñàkk di am yow nga ñàkk mais mën a remplir say poche tabax say kër jël say oto bay ñeneen ñi loolu moo tax ñu bëri découragé ay Aïcha madame ñu daal lay bàyyi sa kàddu gu mujj ci jotaay bi nga daal di tàggoo ak ban message ngay lancé. xanaa message bi may lancé mooy rek di ñaanal ñëpp jàmm ci weeru koor bi di ñaan yàlla niñ ci duggee ak bisimilahi rahmaani rahim ñu génn ci alhamdulilahi rabil alamina te yàlla may ñu wér ak wérle tàppe xol yi ñi nga xam ni nekk nañ ci lu noonu. ñaan yàlla mu dëpp leen ndax weeru koor occasion la daan gis ñoo xam ne daaw ñu julli ñu ngi julli nga gis ñoo xam ne daaw ñu jaamu yàlla ñu ngi jaamu yàlla mais surtout nañu dimbalante ci weeru koor bi ku tane sa moroom na nga ko dimbale soo amee sa 200 francs gis sa moroom ca wàll ga mu xam ne xel amul partagé ko il faut ñu am esprit partage te it lépp ñu ko def sutura ak teggin mais di di joxe di ko fësal di joxe di ko wane lu mën a ñàkk la loolu du wàllu jullit ah, di gërëmaat ñii rek soxna Xadi ndoom euh, jogop soxna Ndumbe di gërëm képp koo xam ne yaa ngi ànd ak man ci liggéey bi muy ci wàllu administration ci wàllu politique bi ci wàllu développement social bi di wax rek nag ñu bàyyi xel jigéeni Touba jigéen département bi yëpp laay wax mais jigéen Touba yi maa ngi ñaan yàlla ñu bàyyi leen xel bu baax a baax ndax ay jàmbaar faat dëgg lañu ñoo njëkk a jóg ñoo mujj a tëdd ñu leen bàyyi xel bu wér a wér a wér ci li ñu liggéey loolu daal laay ñaan yàlla euh, di leen gërëm yéen tam ci invitation bi euh, li ngeen def ba ñëw sama kër ndax nit ki bu def dara xelam daj ci yow mu booy la ci rek am na fu mu la teg di leen ñaanal surtout que ngeen njëkk a commencé ci man. nuyoo tagg nga sëñ bi tàgg wu ne xam naa dañuy jaaraatal daf ñoo xaw ci rëcc. waaw sëñ sëñ bi aw bàll ko ma jur. imaam ndaayan awa Balla mooy euh, doomu maam Thierno Ibra Faati la sëñ Mudu aw Balla sëñ Abdou Samad sama borom kër di sama xarit sama xarit la lool di ma di ma conseiller di ma ñaanal baax ci man lool Mbàkke Balla rëccu ma lu ma doon ànd ak moom waaw daal ko ñaanal gudd fan ak wér rek waaw baax a baax yàlla musal ko ci ndog ak te yaakaar gee waa daaru musi am ci moom ba dénk ko cër bu rëy bay dénk ko ci daaru ndax man soxna si ab sëriñ kese laa yor sëriñ samat ku sañoon ku ne muy sa borom kër loolu yàlla ñoru ko lii may def di politique sax jaaxal na lu bari ñu baree baree bari loolu moo lay wan tolérance am rek ko ñaanal bu baax a baax di ñaanal bépp jullit yéen di leen ñaan seen télévision bi dem fu kawe seen yort yéen tamit am ay promotion yu mag a mag di balu ñëpp àq di bal ñëpp àq. Aïcha jaajëfal nañ la bu baax soxna Mariam madame Mbacké ñu fekk si woon ko tey nag suñu premier numéro ndogu VIP ku xool image yi déglu waxtaan bi xam ne euh, turu émission bi méngoo na ak ki ñu fi fekk muy soxna madame Mbacké di jigéen ju góor nekk ci dëkk bu sell bi di Touba di jàppale ay soxna ni moom ñoo ngi koy jaajëfal bu baax di ko sant di ko gërëm nag ci jotaay bi nga xam ne seq nañ fa moom ca may sant tailleur bi nga xamante ne si moom ñawal garambu bu bu rafet bi muy xaadim création nekk Dakar marché aslem ci arrêt bi ngeen mën koo jot ci 77 145 16 10 xam naa dinañ leen afficher numéro bi pour moo gën a réer may sant équipe technique bi ma àndaloon Mourtala faal Fallu ci caméra bi ak sunu sapeur bi Mourtala di leen jox di daje sunu beneen dog VIP bi jërë ngeen jëf. bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi mbokki Sénégal su ngeen bëggee xam le numéro un de carreaux da ngeen agsiwul fii si Touba jàppale ni mbokk yi bi tay fort accès ba léegi yéen ak société bu nu ràññee loolu si wàllub carreau si àdduna wërngal këpp si liggéey bu baax si ay carreau yu mucc ayib waaye nag mbokk yi fii si Touba seen représentant bii di Touba xéwal carreau nekk si Touba 28 kër Serigne Mbaye Sarr jàkkaarloo kër Serigne Abdou Wadour lépp lu ngeen itteewoti si wàllub carreau ngir seen ay travaux si ay carreau dernière génération mën a dékku mbooleem température waaye nag liggéey bu am étanchéité prix bu xéewale boo dul am faneen fu dul fii mani mbokk am nanu grès poli 40 sur 40 akit grès poli 60 sur 60 amit porcelaine 40 sur 40 60 sur 60 amit émail dimension 30 sur 30 40 sur 40 am carreau faïence 20 sur 30 25 sur 40 ay antidérapant si ñaari façon am nanu antidérapant décor antidérapant crin 30 sur 30 amit grès sédam bari ay façon loolu première qualité 98 04 am na fi également ay ñetti dimension 30 sur 30 am nañu couleur bu beige amit couleur bu gris ah mbokk yi lii nag mooy la qualité totale saa su ngeen itteewatee produit yu baax bëgg ay matériels yu mucc ayib aju si wàllub carreau bu ngeen accès fii si Touba xéewal carreau boole magasin bu jënd di jaayaat dama ni jaxatul dem usine ba fii la gën a yombee fii la gën a yembee fii la gën a xéewale ak si xam bu ngeen bëggee lépp lu aju si wàllub sanitaire ci matériel de qualité am na nañu lavabo ay chaise anglaise wala ay robinet ak lépp lu si mën a doon ay commande ñu defal leen livraison lu mu sori sori si biir Sénégal wala si biir Touba sunu ay oto yemb na gaaw leen gaaw woote 77 501 24 34 76 585 53 46 ah bu ngeen bëggee nag seen i mbëbët antu ñëw leen seet si représentant Tayfort di Touba xéwal caro si Touba 28 lépp yemb